jërëjëf suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar yéen ñuy suivre seen site internet Gaston Production tey déplacé fii école de lutte Balla Gaye jël mooy Gackou 2 ginnaaw combat bi nga xam ne amal na ko le 11 février digganteem ak ki nga xam mooy Bébé Diène te Assane Ndiaye ko lamb ji jeex mu ñàkk par avertissement boobu ba léegi nag coow li bëri na ak détails ñu jël si ko fas yéene waxtaan moom ci loolu lépp dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet yi bu ko defee ñu jublu ci liggéey maa lay siyaar baax a baax di la bëgg Mouranda maa lay di la bëggee di nuyu ñi ngi seetaan bokk internet yëpp di nuyu àdduna di nuyu Sénégal di nuyu waa Géejawaay gi ñu nekk di nuyu waa Pikine di nuyu waa Sénégal gi yëpp waa Touba waa Canaba waa Yoff Cambérène nuyu waa Sénégal gi yëpp Tivaouane xam nga suñu waa dëkk Kébémer waa Njaasaan waa waa waa waa Ngumba di nuyu waa Fuuta di nuyu ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne doon nañ jàpp si combat bi mm-hmm. ñi doon ñu ñaanal ñu doon ñu supporter mm-hmm. ñi doon ñu jàppale si financièrement ñuy ja doon ñu jàppale si entraînement yi ñëpp ñoo ngi leen di bëggee di leen di leen ziar mm-hmm. waaw. Gakou si loo nekk. maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi nuyu waaw maa ngi sant waaw. noo dundee après komba bi noo ko dundee. après komba bi waaye bëggee rek. bëggee rek waaw gars foo romb ñu ngi lay félicité ñoo ngi lay ñoo ngi lay encourager di la di la di ñaanal xam nga foo romb ñu fu ma romb ñu ngi may félicité waaw ñoo ngi ñoo ngi bëggee bu baax a baax après combat bi moom ku ne gis na ni combat bi demee esaat def nañ li ñu war a def lépp arbitre bi ñëw gis nga ni mu yàqee làmb yi loolu moom ñëpp gis nañ ko Sénégal gi yëpp gis nañ ko waaw kon kon kon ñun amuñu si benn regret si combat bi mhm. waaw. macha allah bala maa ñëw si combat bi dañuy ñëw séance de entraînement yi nan la doon demee. séance yi daan xëy dem des fois ñu footing des fois ñu dem salle xam nga salle moom daanaka chaque jour dañ daan dem ah. Mhm. waaw des fois coach bi dañuy def ñuy footing loo mhm. des fois din des fois géej des fois gradin monument de la renaissance xam nga noonu lañ ko doon jaxasee bu ngoonee ñu ñëw contact. box waaw. Mm-hmm. allah am na solo tàkkusaan googu bi nga dugg see ñu gis ci Gàkku lu luñ mës a gis ci côté mobilisation fan nga jaar ak supporters yi wala lan moo xew ci diggante bi. waaw non géejuwaay ñoo génn rek. waaye ñoo génn Pikine ñoo génn Thiaroye ñoo génn Yëmbal Kër Massar ñëpp ñëw supporter Gàkku 2 ñun mosu ñoo am mosu ñoo mosu ñoo am euh, problème mu supporter mm-hmm. gars yi ñun ñu ngi bëgg dañoo bëri ndax ñun. dañuy dañuy dañuy bëggal dañuy bëggal suñu supporter di bëggal suñuy amateur mm-hmm. ñun ku ne xam na ne buñ duggee si làmb ji li ñu war yëpp dañ koy def mm-hmm. bii nii jënd nañ billet yu bari jënd nañ njëgu un million cinq cent et quelque jënd nañ ko billet mm-hmm. supporter la ñëw nañ ñëpp ñëw nañ jàpp si ku mel ni Bamba Fall jàpp na si may na ma trois blocs waaw ku mel ne sama turandoo Malick gàkku may na ma xaalis bu bëri jàpp na si bu baax la jóob may na ma xaalis bu bëri jàpp na si bu baax xam nga ku mel ne Fara Ndaw jàpp na si bu baax a baax may ma xaalis bu bari ku mel ni Pape Mama jàpp na si bu baax a baax Omar Baas ñoom Xaarim Touré ñoom ñoom ñoom ñoom Demba xam nga ñoom Modou Touba kulim da juum bas bas sec bas militaire euh, ñëpp jàpp nañ si sama waa koñ booy dañ daan cotiser dañ doon cotiser ay mille francs mille francs di dem di koti ket ñëw dañ daan dem ba dañuy kale sax mais sama waa koñ booy niñ bëggee woon combat bi mosuñu bëggee dañuy dem dem di ket ñëw jox ma ni ma génneel say sarax billaay wallaay combat bi amu si benn problème gars yëpp jàpp nañ si jàpp nañ si bu baax a baax a baax a baax maa ngi sant ñi si jàpp ñëpp waaw am na solo ñu ñëw si combat bi ba arbitre bi sifflé combat bi nan nga abordé combat bi ba mu jeex waaw bi arbitre bi sifflé leetoo nañ mhm. ku nekk def benn round d'observation ñu leetoo leetoo leetoo leetoo aar bi xëcc ni ñu ni bëri leen mm-hmm. bi ñu leetoo waa tey dem ba si wetu saako yi mm-hmm. mu jàpp sama tànk mm-hmm. bëgg ma dëj ma tourner def rotation foofu la arbitre bi joxe joxe avertissement bu bon boobu moo jox. nga génn. def rotation génn. tey ñu dem ba si dañoo wu leetoo dem ba si saako yi. ñu bëre. ñu bëri saako yi mu jàpp mu jël sama tànk. ma de ma jargandalu nii tourner. léegi sama benn tànk génn arbitre yi woowaat ñu ni ni def ma jox ma avertissement mais loolu àdduna ñoo ko ñaawlu àdduna ñoo ñaawlu avertissement boobu koo taseel mu ni la noo arbitre moo yàq làmb ji reporter yi di ko wax journaliste yi ñëpp di ko wax ñu doon seetaan làmb yi ku ne xam na ni foofu avertissement bi waru fa am ba pare Bébé Diène fi ma doon fi ma doon jéem a bëtte def nii foofu dafa toog demi flexion bi dafa toog toog bu leer àdduna yëpp gis ko photo yi boo ko ñëpp dañ koy partagé si toog beeg si kii bi ñëpp gis ko def naa sama recours nag dañ ma jox sama victoire. dañ nga déposé recours. def naa recours lundi. dañ ma jox sama victoire. àddina bi yëpp xam nañ ne Bébé Diène dafa toog. CNG ay njiit lañ ñoom lañ dénk làmb ji te ñun wóolu nañ leen président président Bira Sène man xam naa ko dem naa bureau xam naa ne ku responsable la wóolu nañ leen def naa li ma war a def déposé naa sama recours nañ ñu àtte jox ma sama victoire ndax bëre bi dafa metti komba da ngay da da préparé ay combat ay juróomi weer combat bi li ma ko musuma ba musuma préparé ay combat cinq mois ay combat un mois la ay combat la combat man musu ay au mois un mois vingt jours ay un mois quelques deux mois musuma préparé combat bu yàggee nii def si ay millions ñu ñu ñu bëgg a yàq sama combat noonu si bu lu yomb. Bébé Diène bu dee man moom kese fii ba déwén mënu ma daan. Mm-hmm. mais tey ay ay ay avertissement yu ñàkk fayda bëgg a yàq sa làmb loolu mënul nekk xam nga maa ngi leen di déglu dugal naa sama recours maa ngi leen di déglu. donc ma waa Guédiawaye yëpp a ngi déglu waa Pikine a ngi déglu samay mbokk yëpp a ngi déglu képp ku bëgg gàkku moo ngi déglu waa CNG ba xam lu ñuy jox. macha allah ba xam lu leen di jox combat bi ni mu déroulé ba jeexe noonu est ce que séntu woon nga loolu ak combat bi yàgg gi mu yàgg ak métti gi mu metti parce que ci bëre la métti mais méttiwul ci xeex. xeex nañ bëre nañ xeex nañ bëre nañ combat bi def nañ li ñu war a def lépp man ak man ak sama adversaire yëpp bëre nañ def nañ li war a def lépp Bébé Diène kenn balaamewu ko sonn na mais def nañ li mu war a def lépp man def naa li mu war a def lépp kon tey. ñaari xale yoo xam ne ñëw nañ fay ñu leen cent millions fay ñu leen cinquante million gis nañ fi bërki démb ñaari mbër yoo xam ne ay millions yu bari lañ leen fay ba Bombardier ak Tapha Tine laalante lañ def mu jeex nañ respecté non de ñun ñun ñun war a dañu war a respecté dañu fay xaalis mbëri ndaw yi lañ ko war lañ ko war a gën a respecté mbëri mag yi bëriwuñu mbëri mag yi ñoom ñoo ëpp liñ leen di fay ñoom lañ gën a respecté te te te te te ñoom bu bu dee làmb ju neex duñ ko séntu si ñoom bu dee làmb ju neex si mbëri ndaw yi lañ koy séntu kon nañ gën a respecté mbëri ndaw yi mbëri ndaw yi ñooy neexal làmb mbëri ndaw yi ñooy mobiliser mbëri ndaw yi ñooy ñëw fecc ambiance mbëri ndaw yi ñooy jëndi ay billets jël seen xaalis da ngay gis ku ñu fay benn un million mu jël un million cinq cent dolli ko jënd kii mu jël cinq cent mill dolli ko si un million yi jënd un million cinq cent wala deux millions billets mbëri ndaw yi kese ñoo koy def mbëri mag yi dañ leen fay ay soixante millions da ngay ñëw gis stade bi du fees wala nga ñu fay leen soixante dix millions quatre vingt millions stade bi du fees ñun ñun fay ñu ñu loolu te bu ñuy ñëw dañuy jënd dañuy mobiliser mobilisation bu doy waar suñu xaalis yëpp dañ koy jënd ay billets ñu ñu ñu ñu jàppalee dañ ñuy dañ ñu jàppale ñu suñu xaalis yëpp jënd ko kon nañ ñu gën a respecté gën ñoo jox cër xam nga ba pare di di di di di xoolaat. di xoolaat arbitre arbitre yi yi arbitré mhm. ñu leen xoolaat arbitre yu am expérience ñu leen ñu leen ñu leen arbitré wala ñu ñu formation yi ñu leen formé ñu xool ko ndax arbitrage bi dafa des chaque jour chaque jour ne da ngay gis ay failles yu bëri juum mënul ñax mhm. tey nit ni ay nit kese lañ mën nañu juum mais juum dëkk ca mënul nekk chaque jour ñu jum chaque jour chaque jour ñu juum loolu mënul nekk nañ xoolaat arbitrage bi quoi Mhm. waaw. macha allah am na solo ba tey yaakaar naa damay taxaw ci komba bi fi laay jeexalee bi ñu miitaan yow xam nga ne yaa ngi ci ñaari avertissement moom moo ngi si benn foofu noonu mënoon a gérer sa làmb wala soit nga profité ko mu am euh, benn avertissement ngeen tolloo le deux avertissement. non c'est vrai loolu yëpp mën na nekk tey ba ba mënoon mënoon naa ko def bi bi arbitre euh, bi ñu ñëwee deuxième mi man mënoon naa ko sëqatal. mu kii mais boobu damaa faxaj sama loxo bi. boobu sama loxo gaañ naa si loxo. sama loxo bi di metti gars yi ni ma taxawal ñu nekk si cumbukaay bi yëpp même Lamine gars yi ni ma taxawal non xam naa ko xam naa ko mais munuma asaaloo sama combat combat bi dama ko dama ko préparé ay weer tey jii nii munuma bu ma bu ñëwoon bu ñëwoon def benn erreur tamit buñ ma daanee dañ naan ma dañ ma waroo woon waroo woon waroo woon def lii waroo woon def lee waroon ngaa taxaw arbitre bu jeexee xam nga mais tamit boo xoolee boo xoolee euh, ni mu demee rek la mënoon demee hmm. maa ngi si sant yàlla bu baax a baax a baax a baax hmm. di wax ni yeneen mbëri hmm. adversaire bi Gackou doy nañ jël nañ jël avance bi. dinañ ñëw ci adversaire yi. waaw combat bi jeex na lan ngay wax sa adversaire yaakaar naa ne combat bi bëri woon na tension bëri woon na coow. waaw na coow mais li ma ko wax rek. Ah. nee naa ko avant combat bi dina tàng. Ah, après combat bi dina tàng mais bu jeexee jeex na bu bu at bu bu jeexee. dañuy dañuy dañuy nekkaat jàmm quoi ndax gis nañ keroog bi mu jeexee dafa ñëw lëng ma xam nga jooy xam nga champion la moom gaynde la keroog rafet na quoi après bi ñu bëree ba pare nice na mm-hmm. avant ñu kii nag boobu tàngoon na trop méttoon na trop noonu la war a demee dafa war a tàng dafa war a neex dafa war a saf sap <laughs> waaw bu mais bu jeexee rek mooy loolu uh-huh. waaw noonu la demee quoi mm. macha allah am na solo léegi nag bala ñoo ñëw ci adversaire yi dañu dégg ne Bamba Fall jëndal na la deux bologu billet ba pare trois bologu billet ba pare may la may la deux cent mille tegal la ko ci ci koo xamante ne mooy maire Médina di maire Bébé Diène waaw Bamba Fall dafa def dafa def lu rafet Bamba Fall def na lu rafet trois bolog la ma jëndal ak may na ma deux cent mille ak trois bolog te te te moom dëkkul Géejawaay un million cent te dëkkul fii Médina la dëkk dëkkul Géejawaay lu rëy la def mhm. maa ngi ko si sant bu baax a baax a baax a baax a baax di si remercier Assane Ndiaye tamit di sant Assane Ndiaye Assane Ndiaye tamit dox na si maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax mm-hmm. ku ku def lu rëy dégg lu rëy <laughs> ñun ay géwal lañ merci ah. baat bu gàtt la mais ku deful dara doo ko dégg ba ma faal merci beaucoup macha allah waaw. macha allah lamb ji nag léegi jeex na gàkku combat yaa ngi bëgg a bëri yaakaar naa ne combat yu metti yëpp bëre nga ko comme ni ma koy waxee chaque jour samay interview rek ku bëreeg Sator bëreeg Bastafa bëreeg ki nga xam mooy amul fere bëreeg xale bi nga xam mooy caatu yoof bëreeg tonnerre numéro 2 bëreeg Potignan bëreeg Ndongolo bëreeg booy dakaar bëreeg xale yu bëri xale yu ës ci lamb yëpp nga bëree ñoom. gàkku instant yi nag <laughs> lan mooy problème bi lan moo la teree progresser ci lamb ji ak yan adversaire ñoo war wax nga ko tey jii nii ñun ñun ñun dañoo dañoo dañoo ramper. waaw tey tëbu ñu tëb rek di di bëreeg ay ay como wala ay como hmm. <laughs> ah, wala ay wala ay mburaake laa mujj am na ay peñole am na ay mburaake am na ay ay ay ay kii. waaw lam yi <laughs> am nay mburaake am nay mburaake am na ay am na ay na si sax. ñun ah. suñu combat yëpp ay combat yu jànk la ay combat yu métti lañu bëre moo tax tey làmb ji boo koo si wax gàkku de hmm. muy xaw a daam laamee bi kii di Bébé Diène jàmbaar la Bébé Diène Bébé Diène moom moo jël sa avance man maa ko sant bu baax hmm. man man maa man maa ko man maa ko man maa man maa ëpp palmarès si làmb hmm. maa ko raw si làmb bu ma neexoon bañ a bëre moom. neuf combats la amoon waaw bu ma neexoon bañ bëre moom. mais tey. bu ñuy dox sama komba muy të ba ma bëreeg booy dakaar ba léegi. Mm-hmm. presque ba ma bëreeg booy Dakar ak léegi ëpp na ñaari at. ëpp na ñaari at la. Mm-hmm. moom mi ngi ñoom ñu ngi naan mu mi ngi presque moom man ak moom ñoo presque rek ñoo mujjee bëreendoo. Mm-hmm. bi ma bëree bëree booy booy Dakar ak moom bi muy bëree kii. Euh, Fourière 14 mars la. mook Fourière 14 mars. Ah. man 4 juillet. Ah. ñoo raw ñoo ñoo ñoo yam. c'est que li ma nekk di contact ak gars yi ay gars yi di am ay moo ma dimbali rek mm. mais man ak moom presque ma toog naa deux ans bëree ma benn lañ mm-hmm. dama gëj a bëree mm. gars yi ñooy daw avance bi. léegi ñu mel ni ñan. xam nga xam nga xam nga làmb ji dafa bëri ay tapet. déet waxal rek gars yi kay ngi fi di la déglu. làmb ji dafa bëri ay tapet yoo xam ne boo leen laajee. Ah. boo leen laajee bu bu leen promoteur woowee dañ naan sawaay xoolal ma keneen. wala rek man ma wax nag. waxal. waaw yaakaar naa sa combat ak Boy Seye loo ci wax. non booy Seye moom bëgguma ko bu ah, bëree ma ak moom. seen combat na. non bëree ma ak moom ak moom. bëreetoo ak moom waaw Boy Seye Boy Seye ba ma koy jël sax ba ma koy jël sax. Mhm. bëggoon a rek moo taxoon ma koy jël suñu combat ba muy taxaw. Mhm. ba mu ba mu ba mu yàqoo. moom sax dekkoon nañ ko micro mu naan ay bëre wu naan xam nga ni mais mun mun maa mun maa bëree mun maa bëreel mun ma kaa bëreel grand combat. wala hmm. wëlbatiku du bëre ak moom. waaw man bëre maag Boy Seye. ok ci wax. non bëre maag ah. man xam nga ñan laa war a bëreel. xam nga laa war a bëreel Mourou Anta. Ah. Mourou Anta laa war a bëreel Thiès. ban bu ko fee ba. neex ñooñu laa war a bëreel. man bu fekk bu demee ba munul ñaax bu munul ñaax. tonnerre bi mu mujjee bëri bërki dem ma. tonnerre men mën naa mën naa ko dimbali. de doo ko dimbali nag ci victoire la jóge te mooy sa ancien booy. waaw mooy sa ancien de. amul problème ay tonnerre wala ay maama Lamine ay maama Lamine euh, ay kan. Ndiaye Tine. non non. Eh, Ndiaye ak ak ak kii nii Bour Sine. bëreetuma ak benn booy. Eh, ay booy de. bëreetuma ak xoolal. bërituma koo xam ne ay ñetti combat nga am ay juróomi combat bërituma ak ñooñu. Ndiaye Tine moo daan sa patron euh, euh, Bour Sine moo daan sa patron moo daan sa sa frère Fils de Balla. waaw moo daan sa sa frère. waaw léegi ba muy daan Fils de Balla kañ la woon yàgg na. Ah. ba muy daan Fils de Balla yàgg na Bour Sine daf si defet la jógee bërima ak ñooñu man loolu lay doy ñoom Bour Sine ak ñooñu. léegi laay goote loo ci wax sax moo gën a fe ñooñu. waaw bu Thiès. waaw Laay magam laa soxla nag. déedéet yàgg nag mag ji moom du combat. magam laa soxla. magu laay goote la soxla. ak kanaat. ñooñu daal ku si ñëw ñu bëre. Hmm. waaw Tidiane Faye loo ci wax. adversaire de taille la de. waaw Tidiane Faye tamit bu ñëwee moom grand la quoi bu ñëwee tamit ñu bëre. Hmm. waaw. na solo bala ngaa tàggoo Arlem. Arlem maa a ah, nga gëj a Arlem jot na rek def léegi deux ans rek. Papa Kane numéro 2. Papa Kane numéro waaw. loolu yàgg na. yàgg na kay. booba léegi lu gaay wax. waaw boo gaa yaa ngi fi rek ñuy déglu rek déglu ménagère yi rek. ok waaw des fois ñuy proposé mbër tamit mbër mais mbër dañ koy delloo dañuy delloo avance bi. ok kon nag Arlem rek waaw waaw. kon nag nañ ko se nañ ko seetal keneen. yaa ngi si ñaata combat. maa victoire. 4 victoire benn défaite. loo wax ci Sa Thiès bu Ngangu ne. Sa Thiès bu Ngangu ne. waaw booy Sadio la mujjee daan euh. man instant bi nii nii fu ma toll nii gëj naa bëre ba nga xam ne gaañ instant yi tàmmatuma dara waaw billaahi nag yow daw bee daw ma benn nag. <laughs> yow kan nga bëgg yow sa bopp. <laughs> Eh? kan nga bëgg. gars yi même Boy Seye Boy Seye Boy Seye soxla naa ko moom. Boy ñoo oh, ñëpp ah, waaw. gis nga. ak banaat. waaw ñoo ñëpp ay combat rek. waaw mais su ma jotee jaar daan ñu ma ñu ma daan ni instant yi mooy loolu xam rek làmb yi yooyu <laughs> yaakaar na waaw ay doomu dingiraay xam nga gars yi ñeneen ak ñeneen ñooñu sax léegi ay tukki lañ dem ñu Europe léegi mhm. waaw maa ngi moom di leen rek waaw instant yi moom combat rek lañ bëgg moom instant yi pare waaw. maa ngi sant école lutte Balla mhm. yi ñu ma doon contactal ñoom Arlem ak yi ñoom ñoo xam nga ku lim da ngay juum. bala bala bala am na lu ma la bëgg na laaj. le 5 mars lu ngeen def fu ngeen toll. le 5 mars loolu saa kees saa kees rëdd boobu pare na fi ne nii neex la wu leen de. man de le 18 moom lu naqare naqare yàlla bu ci bokk suturaal leen moo daan am ndam. <laughs> waaw ñun kay naqar la wuñu ñun ñun naqar la wuñu de. li mujj Balla Gaye. waaw loolu garaawul. déedéet man daanu ma de. man kan moo ma daan. trois avertissement lan la daan déedéet man daanu ma de man kenn damaa daan man maa daan. ok noo gisee combat dafa toog dañ may jox son victoire. noo gisee combat boobu. combat Sakess Pake Sakess Modou Anta. Hmm, waxal. Hmm. Sakess Modou hmm, ngi ñaanal Sakess yàlla may ko ndam ndam lu gaaw lu sedd. di ko ñaanal bu baax a baax Sakess Reug Reug dafa bëri wax di wax rek. fukki combat mu daan leen fukk. saa keesu ko mën fuuf le cinq waaw ah. yàggatul. Bébé Diène wax na fi lu ne signature signature yi wax na fi lu ne ay wanaa Thiès ay xaw ma ne wax na ko lu ne. lu ne wax na ko si siège bi la mujjee toog per Kayre moo ko dimbali. lu ne saa signature gars yi wax lu mais biir géew bokkul ak signature de. boo toogee nii micro yi ñu jox la ngay wax nii dafa yomb mën nga wax lu la neex mais boo duggee si biir géej bi leneen moo fa am ñoo ngi ñaan yàlla may ñu ndam man loolu laay wax ñoo ngi ñaan yàlla yàlla rek fi nekk yàlla kese mooy maye yàlla rek a fi nekk keneen nekku fi yàlla yàlla ñoo ngi koy ñaan yàlla may ndam la cinq incha allah di sant ñëpp waa école bi di sant képp ku ñu jàppale di sant Sénégal gars yi yëpp képp képp ku ñu ñaanal ak képp ku ñu jàppale financièrement si si si sport bi ak si conseil si lépp ñoo ngi leen di sant maa ngi sant ñëpp wasalaam. macha allah mbokk yi mi ngi noonu Gackou 2 lan dalaloon tey bu école de lutte Balla Gaye ginnaaw bi nga xamee jóge na ko ci digganteem ak bébé Diène Assane Ndiaye tëggoon ko ñu koy félicité bu baax a baax moom njiital Bawol production di encouragé mboolem ñi ci fa bëre woon te daan te daanu di félicité ñi nga xam ñoo fa bëri woon te am dam mbokki di leen jox di daje ba beneen yoon ci Gaston production xalil jërëjëf.